suñ jafé jafé bi mom daanaka jaru ngeen ñukoy laaj ndax gis ngeen ci ndax yeen ñun ñëw ngeen dug ngeen ci ndox mi gis ngeen ndox mi ñun nak dañu nekk ñoo xamni ñi ñii dañ ñoo yar dañ ñoo yar ba lakkuñ pëno lakkuñ pëno yuuxuñ defuñ dara dañoo oo ngir ku ñu dimbalé pour dimbalé ñu ci assainissement bi fi ni mel yeen tek ngeen seen bët gis ngeen buñ ko gën télé ñëpp dañ gis xamné mairie na baba Fass Tivaouane 2 ndox kese la ñun nag canal liñ ci xam canal buy dugal ndox waaye canal buy génne ndox fii rek lañ ko gis gis nga fee tuyaux yi yëpp dañuy génne ndox regard yi yëpp dañuy génne ndox tout yëpp dañuy génne ndox kër yëpp a ngi fees del nit ñi seen mat laa ngi fees del dañu amuñ fu ñu teg sax togg añ koñ bi ñëpp taxaw fu ne nii taxaw tem te parce que amuñ fu ñu nekk ngir ndox mu bëri mi léegi nag ñun dañuy ñaan dimbal état bi na sëriñ bu mi nga xam ne mooy meeru dëkk bi xëy na nag mu ngi def waaye nañu gën a dolli parce que ndox mi métti na lool ndox mi mit na ñun trop ñu seeta ñu canal bi lan mooy indi ndox mi parce que ndox mi génn nii nii du ndoxum taw kese ndox mi génn ci canal bi du ndoxum taw kese dafa rax xaw ma fan la tuyau ONAS toje am na ku moo informé ne am na benn tuyau ONAS bu toj ndox moom moo dugg ci canal moo moo tax ndox mi yëpp génn mais fii bu tawoon bu defoon 30 minutes rek wala une heure ndox mi yëpp day wàccaat dem mais gis nga depuis soo ba léegi ñu ngi ci biir ndox mi soo ba léegi ñu ngi ci biir ndox mi kër yëpp fees del nañu dimbale ngir yàlla dimbale ñu ñun nag lakkuñ pëno yuuxuñ waxuñ kenn dara lu may ñaan ndimbal pour ñu dimbal lañ ci quartier bi ci li may wax nag maa ngi koy wax turam Baba Ndiaye mi nga xam mooy délégué de quartier bi dañoo yàgg dund lii lool ay at lii dañuy dund quartier bi nim ko waxee léegi Médina na fas waaye ci biir Médina Mbaba la nekk Médina Mbaba la woon am na ci quartier boo xam ne dafa sësoog moom ñu koy Médina Fass 1 mais ba léegi sax turu Médina Mbaba moo fi nekk Médina Mbaba nag mu ngi taqaloo ak Médina Baye ak euh, Jaleñ nekk ci digg bi et léegi suñu tawat mooy ndox mi moo ñu sonal amul benn at boo xam ne ndox mi duñu sonal mais li ñu dal démb ak tey moom dafa ëpp ndax ndox bu dem ba nekk ba toll ci ndiggal nit mbooleem bagage yi nekk ci néeg yi ci quartier bi parce lu bëri yàqu na ci suba ba léegi quartier bi kenn amul jàmm léegi nag loolu la ñuy joytu di ko joytu nag waa état bi président de la république di ko joytu état bi di ko joytu nag ki nga xam ne moom la yàlla jox maire bi maire bi muy maire maire de Kaolack di Serigne Mboup même bu fekkee nekku fi ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal bu buñ ko déggee na xam ne nañ jël place su Serigne Mboup xam ne ñun waa Médina Baba sonn nañ jaaxle nañ am na ñu wax xalaat ne ONAS moo toj ndox mi ñëw fi parce que man ci suba bi may xëy boobu ndox mi mu ngi bëri waaye mu ngi set mais bi ma ñëwaatee ay deux heures dama fekk ndox mi ñuul kuk kuk kuk maanaam fii ci Medina Baba dama naan ndax du moo ëpp taalibe Baay taalibe Seexul Xadim Xadim Rasul taalibe ma Alaaji Maalik ñu fi waaye li fi sotteeku parce que quartier bi ñi nekk murit ak Tijaan Xaadir ñëpp dañoo nekk benn kër yi murit yi day fees del waaw même waa Tiwaawan yi ñi fi demul sax day fees del kon ñun ñëpp dañoo suñu kër yëpp ay fees ci gàmm gi bésu gàmm gi day fees quartier bi day fees del fu mu ne nii moom suñu problème dëgg mooy ñun gàmm gi ñëw moom parce que ndox mi demul te amul fu mu jaar dem ndox mi dafa amul fu mu jaar dem te du dem kon loolu moom bu état gaawut di wax itam ne ki nga xam ne mooy xalifatul am Cheikh Mahi Ibrahim Niass suñu sëriñ nga xam ne nit ko baax la te lu mu dégg def ca ndimbal maa ngi wax su ko yëgee su ko déggee mu jàppali ñu ci euh, wax ñu maire maire waa maire bi ak waa état bi ak ku ñu mën a dimbale rek. Hmm. bépp jaamu yàlla sax boo xam ne dégg nga lii nga mën ñu si jàppale nga jàppale ci. ndox amu fi ndox mi tuuti tuuti moo fi am euh, même euh, am na fi lamp yoo xam ne ñu ngi fi taxaw sax mais yu bëri amuñu amuñu amuñu kii euh, kii bi dafa toj. dafa ta dafa dafa yàq waaw dafa lëndëm quartier bi dafa lëndëm parce que kii dafa am kii yu yàqu te am na quartier yoo koñ koñaat yoo xam ne moom amul sax poto lamp ci biir loolu itam du fi jeex. ndox mi ndox mi ndox dañ koy jigéen ñi dañ koy rootaani fu sore sori ci biir ruq-ruqaan yi daal di ko jënd di ko wut wuti bu métti métti te loolu yëpp gàmm gaa ngi ñëw te gàmm gi nag gàmm ak ñëpp la ndax juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moom la ñuy màggal te itam buñ sañoon gan yi bu ñu ñëw fekk suñ kër set suñ kër nekk kër yu set